foofu Amet Lac Rose la jël daal di koy boole ak doomu jàmm gën Franc mbër mu jox ko réparé ci kiri caacoo ak xëy saara mbokk yi ama bu yaraax ak gorofil sëy jàmbaar dina fa jàkkaarloo ak joona bi sentel junior jàkkaarloo fa ak nduquman njaga oro numéro 2 ak petit zé petit laay jàkkaarloo fa ak boy radiateur animation ba ibulaay nee na moomoo ngom mbayang lum nabu yaa daan ak waa kër Pape Seck yi invité d'honneur mu ne Modou xarañ Lo le roi des arènes Franc Goro Sok Talfa Damsen guy gi gargadeur sponsor leader yëpp mu ne ETDR bu production Lutte King Boisson Tampico entrée supporter Iboulaye ne 2000 francs amateur 5000 francs loge officielle 10 000 francs tey Iboulaye production xale yi mu tëgg rek na tey ji lamb ëllëg war a wax doomi mbër ñu xam ne mbëree bàyyi ay wax yàgg na jaajëf sama waay tuddee Balla de doom jëwriñ bala ñu tuuti jëwriñ baal ñu tuuti baal ñu tuddee Balla muy koo xam ne dafa mës a wane appartenance am ak gëm-gëmam ci Balla Gaye de Saliou bi nga déggee Saliou bi nga déggee tur bi. waaw dañuy santaat yàlla baax a baax yàlla mi ñu fekkee war ci jàmm di delluwaat di wax oh, alhamdulilah di rafetlu jotaay bi ñu bi ñu bi ñu dajalewaat parce que sant yàlla mën na weesu jàmm gi ñu doole euh, bisu bi. di euh, di leen remercier aussi yéen tamit ci at mi ngeen def mooy euh, liiru moom ku ne xam may mënuma Géejawaay tey bu xewlee ku mu yëgal ku mu yëgalu ñëpp nañ déplacé wu ñëw waaw waxatuma la nag ci atu tour bu rafet bi mu jël tuddee ko Balla Gaye di wax ni euh, bettul ñu bëri ah su ko tuddee Balla Gaye du bett kenn bu ko tuddee woon jéey seen it du bett kenn su ko tuddee woon yonent bi du bett kenn bu ko tuddee woon tamit waajuram bu góor du bett kenn mais ñi ngi rafetlu wax sax dina gën a wane seen diggante du du lu ñàkk fayda moo leen boole si diggante mag ak rakk la ñoo bokk nday ak baay ñooy ànd guddi ñooy ànd bëccëg ci lu nekk kii ci kii ci lu mu nekk rek kii ci la nekk aussi. Saliou man li may laaj làmb la concerné ah. amateur yi ñu ngi plébiscité diggante Sa Thiès ak Franc te lépp ci ay supporters dafa mel ni d'accord nañ ci combat boobu te ñu gis ne que pratiquement mbër yu ma yëpp am nañu combat donc pourquoi pas. benn éventuel daje diggante Sa Thiès ak Franc Tiesco. pourquoi chaque jour Sa Thiès di toog di resta di di di bëri ak ay moromam kese samay morom yi bëri ak ay seen i grand ma. xoolal caméra yi palmarès bi ñu def ba bëri ak ñoom def naa ko fi c'est que ak keneen ku mënu doon mbër la dama koy respecté def na li mu war a def néew ma nag yegsiwul sax pour bëri ak man ñoo bokk benn génération bu ñu yegg mais làmb na dafa am ñaar yu mbaaxu bu làmb ji raisonnable prix bi na raisonnable bu làmb raisonnable nag prix bi du raisonnable. bu bi taxaw. du raisonnable nag ci prix ndax man pour man làmb ji raisonnable sama côté war naa dem xooli sama kanam. du dëgg mooy ful la waaw Mansour nag suñu grand la suñu xarit la. war na ma ne sax kaay nga bëri franc ma dem bëri franc ci gratuit sans problème. par rapport ak fi nga jógee kon jàpp naa ne àdduna lépp risque la ku dee nag noppalu waaw moom mënut a weesu bëri ay ay ay nombre de combat bëri façon nit bu ne fi nga yegg si waaw mais li ma bëgg dégg daal mooy bu ñu la fayee lu ko jar pare nga pour bëri ak moom waaw bu ma fayee prix bu raisonnable sama côté pare naa ko bëri moom waaw tey yëg-yëg bi may kontaan ah, sant yàlla baax a a baax di remercier di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram xale bi mu tuppee Balla Gaye aussi tamit yàlla defal ko mu màgg ba njëriñ gi mu sént ci moom aussi tamit yàlla defal ko waaw yàlla gën leen a boole gën leen a suude di wax géejawaay réew réewu jàmm la ñun jàmm la ñu xam fu jàmm amee faa yu ñu demee wut. diw leen yabu ko ñooy jël fii. ah Mathia noppal waa yow. ba tey grand port amagul. Franc nekk fi. rëg-rëg am na sens rek ci jëli bombardier. taxawaayu VIP nan nga ko gisee si làmb. waaw grand côté bëri bi am am na dafa tas tas waaw bëriwul parce que ñi ci kaw bëriwul lu dëgg te <coughs> am na ñu bëri ak am na ñu des tuuti mais daanaka euh, yàggutul dara si ñoom léegi ñu jeex léegi ñu pare ci ñun booy ñoo fi des. mais l'essentiel am naa yaakaar ni bu carte gi tasee aussi yenn booy dinañ bëri yenn garaay. amateur yi ñu ne erreur bi nga def mooy bàyyi Bombardier ba Reug Reug dem jëli combat moo daal loolu mooy erreur u Sa Thiès dañ ciy ak ñoom wala lan nga leen di wax. waaw toor googu kon nañ ko jox Balla Gaye maa xamante man. loolu man fekk ma yëgu ma Balla Gaye la ñuy waxal. du dëgg combat bi li ngeen di dégg mi coow yëpp moom moom moo ci wax moom lañ ci woo moom lañ ci gérer waaw man sama mbëbët bëre woon a la. bëre woon ak képp ku daan Balla Gaye mais man ba combat bi coow parce que fekk ma fi ma fekk France mais nag nit amoo dul sa kilifa su la yemloo fii nga yem fi mais nag boo demee ba benn instant mu gis ni fi mu la yemloo daa gàtt wala neex nga kof nag dem seet leneen. Fils de Balla génn def benn sortie mbër yu ndaw ndawaan yëpp mel dañoo yàkkamti woon kenn wax ci Balla Gaye ba ci nekk génn ci ñoom wax lan mooy expliquer loolu Balla Gaye mel na ni war a mel digganteem ak mbër yu ndaw yi biir Guédiawaye wala da nga jàpp ne acharnement la contre la personne de Balla Gaye de di ñaan ak képp ku jëru micro di wax ci Balla Gaye rek na ma ci seet ndeysaan parce que gis nga àdduna fu ko tànk ñëpp benn lañ ñun coow jiguñu ñun Guédiawaye coow jiguñu heure bu ñu coowee dama naan ci ci ci suñu tund géejawaay bi day bokku ci ñi ëpp defet mais saa yu ñu nekkoo benn ba léegi ñooy nekk au top di ci jégalu ñëpp ku Balla Gaye def ak ku mu deful. di jégalu Balla Gaye mi nga xam ne mooy sama mag man maa ngi jégalu ñëpp jël toor bi man teg ko ci sama kaw. maa ngi baalu ñëpp àq. di ñaan yàlla rek lépp loo xamante ni. mooy ay rek yàlla na fi jeex. man dama dégg ni doomam dafa hospitalisé entre hôpital moo tax demul woon ci ngénte fils de Balla bi est-ce que information boobu Sadio mën na ko mën na ko dëggal. comme comme kan. waaw xam nga fii lépp loo fi wax liy defar rek dañ naan day defar. du dëgg ah, mais dama ne man maa jël toor bi teg ko ci sama kaw. fils de Balla lépp lu mu jàppal Omar na ma ko na ma ci seet man. te baax naa parce que man ak moom jàmm lañ sekk man ak ñuy wax ñëpp jàmm lañ sekk géejawaay réer kii ak moom benn ngeen tey mu def lu rëy ndax ñëpp nañ lu rëy la def jël doom tudde ko ki nga xam ne nii moom mooy Lirou Dia ah, Balla maa ngi lay ziar baax Babacar di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci di la wax ne dafa gore li mu def nii dafa gore koo xamul ni la def ni la def moo tax maa ngi doom ku la ko tuddee am na fu la teg diggante bi su fi dalul woon leer du ci judd mu di ko ko tuddee am na ñu ko mën a tuddee am na ñu ko tuddee ci deret mais li li mu def nii dafay wax ni li muy wax ci Balla Gaye 2 am na li jaan ko gore la yàlla seede na ko ak yonent bi ba muy xew Balla xew li ñu koy xam xawuñu Balla kon su amee grandeur am doom tudde ko Omar Sakho Balla Gaye dañuy wax liiru ñun ñëpp ñoo bokk sëñ Touba di wax ni ak defar la adduna da ngay defar tey liiru jaan liñ ko joxe monument Géejawaay mate na ko te dafay ànd suma xarit muy jëy seen ak Abdoulahat Ndiaye te du soppeeku bala bala mi mu ko tuddee nag boo xoolee Balla ngay xam ne nit nit nitu li ñuy wax ci baatin nit bu suñu borom am lu def ci moom la yàlla seede na ko ak yonent bi xam nga lu tax max la loolu Balla du xool nit jàkkaarloo ak moom Balla waru woon nekk mbër ndax lu réer ci kanam xool ci ab xol Balla yal na ko yàlla teg loxo yal na ko yàlla génn ci xat-xat yi mu nekk te buñ ko ñaanee suñu borom dina ko def wasalaamaaleykum daa baax rek li mu wax ndax li mu wax ko demoon bañ ko fekk ku baax a ngi ni ku goree ni waaw masi la ku baax a ngi ni ku goree ni billaahi wallaahi xam nga tey altine la kenn amul jot ak kenn amul jot kilifa yu bëri yoo xam ne may woo mu bàyyi lépp ñëw mu cee kontaan yàlla na yàlla defal jàmm dangaa jooy tey Papis Papis day wax Papis waaw léew bi tamit sa waay la parce que yaakaar naa tooñante bi gaf gi foofu mu mel ni tey liiru liiru na beneen paas tey li liiru def tey noo ko gisee yow. bu weesoo li muy def nii man xalaatuma si kooku ni bëgg naa borom Touba wallaahi waxatuma laa ñu déplacé wu parcelle xam nga ba fii di ko ñaanal yàlla moo njabootam ak soxnaam ak tout tànk bi soog a gane kii soo ko gën a yàlla suñu borom def ko diine ak islam sàmm ko aar ko mu teral ko incha allah kii sama soxna moo ko bëgg waaw moo tax xam nga baa ma bëgg sama soxna da ko bëgg baa ma bëgg mënu ma dara xam nga di ko ñaanal jàmm yàlla sàmm ko aar ko ba bis bi doomam bi dem ba koy fay incha allah incha allah ci barke xale bi mu jël tudde ko Balla Gaye numéro 2 tamit non loolu warul bettu kenn liiru jaan boo xoolee Balla Gaye xool bu ko neexul sax nga jot jikkoom donc kon tey bu ko tuddee doom bi dañuy def lu dul rafetlu ko waaw di ñaan yàlla xale bi màgg ba teral ba teral turandoo ci barke Seydina ana kim a may ah, mi ngi loolu du yàqu ba léegi a loolu mi ngi du yàqu ba léegi mu koy def ñaareel mu def ñaareel incha allah waaw ok merci léegi loolu moo nee na nee na mooy goro liiru papis nee na mooy goro liiru waaw kontaan ci Papis parce que Papis bu ñëwee fii ñëwal liiru ñun la ñëwal quoi waaw mu nekk sport waru dafa war a boole warul xaajale waaw Papis nekk nit koo xamante ni nit ku nite la nit ku xam boppam xam lu ma la baa nit ku nit ku nite daal parce que loolu mooy àdduna tey na jàpp affaire affaire adversaire kon du fi jaar waaw ñu koy ñaanal lépp loo xamante ni ragal na ko yàlla na ko borom dàqal di ko wax àdduna nii la quoi sport bu boolewul waru tàggat. dara kii yàqul géejawaay dara kii yàqul géejawaay dara école ba mbër bu ci am combat da lay jàppale mention spéciale. sama xarit lañ tuddee doom Omar Sakho Balla Gaye 2 le roi des arènes mbokk ndeyam liiru jaan ku ko tuddee doom tuddee na ko ko war tuddee nag ci du bett barke alxuraanu karim taalibe Serigne Touba nag te man ku bëgg Serigne Touba Xaadimu Rasuul kii réew mi loo mag noo mel bëgg naa la te kii daa bëri jom gëm boppam mënu maa géejawaay di wax lu baax waxul lu bon lu baax rek lay def jëf joo gis am na ku def lu baax am lu baax waaye ku jëf leneen ci réew am leneen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 def lu ne ci làmb ba tekki ngémbam waaye nag mbokk yi Ibulaay production du xam ngeen ko ndaanaan la yemul foofu Amet Lac Rose la jël daal di koy boole ak doomu jàmm gën Fra mbër mu jox ko réparé ci kiri caacoo ak xay saara mbokk yi ama bu yaraax ak gorofil sëy jàmbaar na fa jàkkaarloo ak joona bi sentel junior jàkkaarloo fa ak ndukuman njaga oro numéro 2 ak petit zé petit laay jàkkaarloo fa ak boy radiateur animation ba Ibulaay nee na momoo ngom mbayang lum nabu yaa ak waa kër Pape Seck yi mu ne Modou xarañ leen guy gi garga 2 sponsor leader yëpp mu ne ETDR bu Kanji production Lutte TV King Boisson Tampico entrée supporter Ibulaay ne 2000 francs amateur 5000 francs loge officielle 10 000 francs ci Ibulaay production xale yi mu tëgg rek na la tey làmb ëllëg